Euh, fi ñu gën a ràññee woon taxawaayam mooy fële sa diwaanu Thiès ak troupe jànqeen moom it doonte ni tamit ginnaaw gi am na carrière boo xam ni jot na ko def nekk euh, 2STV doon fa présenté émission bi tuddoon femme africaine moderne Tata Daba Soumaré nag yaakaar naa ñu baree bari xëy na mën nañu fàtte turam waaye bu ngeen gisee image am di ngeen ko xam mu nekkoon euh, ndaanaan ci li nga xam ni moom lay liggéey nekkoon bokkoon na ci femme actrice modèle yi nga xamee ni sénégalaises yi bëggoon nañu leen bu baax baax ndax façon bi nga xamee ni moom la daan traité ay rôle am beneen bi tamit ñu bari ci Sénégalais yi dañ doon gis ci moom beneen femme moderne ak leadership boo xam ni doon na ko wane moom Tata Daba Soumaré nag euh, ça fait un moment xam ni ñu baree bari ci Sénégalais yi yëguñu ko wala gisuñu ko euh, waaye nag euh, tiis bi am mooy dafa daal di génn àdduna niki tey fële ci diwaanu Thiès tey bi 10 heures jotee ci la Tata Daba Soumaré dal di génn àdduna Tata Daba Soumaré ak turub jànqeen yàgg na liggéey ak ñoom produit bi nga xamee ni nag moom la. mujjee def mooy jabaru góor gi euh, ci la mujjee liggéey jabaru góor gi bi nga xam ne ni sax euh, rts e ñoo amoon production bi foofu la foofu ci la ñu ko mujjee gis ginnaaw gi nag ci la njëg nii dafa am feebar boo xam ne tëral na ko euh, ba tey jii nii bi 10 heures jotee moom Tata Daba Soumaré ci la ñàkk bakkanam fële ca diwaanu Thiès ñuy jaalewaat rek la monde culture sénégalaise ak képp koo xam ne rek vraiment yaa ngi ci li nga xamee ni Euh, mooy di def lii di théâtre wala télésérie ndax nit la koo xam ni moo xam euh, ay personnage comique la yu comique moom la ñu daan soxla ci moom wala ay personnage yoo xam ni tamit yu wane modèle la moom daf ko baaxoo woon di ko taxawee Tata Daba Soumaré nag yaakaar naa ñi ko xamul woon wala ñi ko bëggul woon ci Sénégal yi à travers li nga xamee ni moom lay liggéey bariwul donte ni nag ginnaaw gi absence amoon na ci média yi kenn gisutu ko wala déggatuñ ko woon lu baree bari Euh, boobu nag dafa am tawat boo xam ni moom moo ko tëraloon moom Tata Daba Soumaré nag yàlla moo def li gën mu dal di ñàkk bakkanam ni ki tey bi 10 heures 10 heures et quelque jotee fële sa diwaanu Thiès. rédaction seen bës di jaalewaat képp ko xam ne rek artiste nga rawatina suñu mbokk artistes yi nga xamee ni ñoo nekk cees yëpp ak waa troupe jànqeen ndax moom Tata euh, Daba Soumaré bokk na ci ñi ñu gënoon a ràññee fële ci troupe jànqeen bu cees euh, bi nga xamee ni ñoom Serigne Ngagne Papa Cheikh Seck yu demee noonu ñoo fa nekkoon kon nag Tata Daba Soumaré moom la ñu jot xibaar depuis sànq ni génn na àdduna rédaction Senbuzz euh, di ko jaale képp koo xam ne rek artiste nga képp kuy comédien képp koo xam ne rek tamit yaa ngi Cees moo xam nga nekk si troupe wala ci yeneen troupe yi fa nekk yépp euh, di ko jaale tamit képp koo xam ni euh, artiste nga képp kuy comédien képp koo xam ne rek tamit yaa ngi Cees moo xam nga nekk si troupe jànqeen wala ci yeneen troupe yi fa nekk yépp di ko jaale tamit képp koo xam ni fameem nga jër ngeen jëf